soxna si dañ leen fekk fii ci sanctuaire bi ngeen ñëw di ñaan si tey mën nañu xam te en tant que ay fidel bi ñu leen fekkee fii tey ban yëg-yëg ngeen am. en tant que fidèle xanaa rek ñëw ñaan si Mama Marie li nga xamante ne ndey boo xamante ne amul benn gàkk ndey joo xamante ne loo ko ñaan bi may la ko ci xol bu sedd guy te amul euh, dara loo ko xamante ne di nga ko fay loo ko mos a ñaan mu may la ko ñu ngi ñëw fii tey nag di ko ñaan. ci suñu njaboot yi mu taxawu leen ñiy jàng réussir ñi amagul place am place ñi bëgg a sey sey ñu ñuy liggéey mu bàyyi ñu ci suñu liggéey ak wér gu yaram waaw tey kontaan nañu bu baax a baax ñu ngi njëkk a commencé sax fu ñu duggee ci oto bi ñu ngi fecc di tàccu di ko woy parce que luñ ko woy rek ak luñ ko taggas rek xeeb nañ ko fekk leen fii ci sanctuaire bi ngeen ñëw di fi man di fi jagleel ay ñaan tey mën nañu xam tey fi ñu leen fekk tey ban pressentiment ngeen am. xanaa kontaan rek moom te moom franchement parler dañoo kontaan ndax yàlla bu la defee tamit nga fekkee tamit wér gi yaram ba nga mun a ñëw ci pèlerinage bi ñuy sant ma maman Marie rek Yeesu Krista mu jàppale ñaan yi ñuy ñaan nii mu nangu ñu bokk ko ñun ñëpp. lan nga fi ñaan. man bu ma fi ñëwee ñaan naa sama jàmmu yaram ñaan si jàmmu yaram ñëpp. ak am xaalis bu bari liggéey bu baax ak am jëkkër bu baax ma mun a yor mun a yor ñu nga xamante ne amuñu jëkkër nag yàlla may leen jëkkër ñu nga xam ne amuñu jabar tam yàlla may leen jabar waaw wilaay kontaan naa franchement parler kontaan nag ci firi naa man Pikine waaw <laughs> bu neex rek bi lu ngeen fi ñaan ah ñaan ba neex rek ba neex yàlla nañu yàlla góor góorgóorlu ci àdduna bi jàmm am fi yàlla nañu fekkee déwén yu bare bare bare. xool daal sedd na. xol bi sedd na trop. waaye maa ngi lay ah, fay naa la sëñ bi. ñu fekk leen fii tey di ci bokk ci les recueillement yi tey mën nañu xam tey ba yëg ngeen am. bon tey mën nañu wax ne bis bu mag la ndaxte kontaan nañu trop euh, dañu ñëw fekk si Mariama sell bi ñoo ñaan ko mu may ñu jàmm may Sénégal jàmm ñëpp nekk si jàmm bon c'est juste dévotion de foi loolu moo ñu fi indi tey jii nii. mu doon nekk mbégte boo xamante ni waaw macha allah moom ñëpp kontaan nañ pour taw fii wax ak Mariama mu sell mi. tey daal kontaan ngeen trop. waaw kontaan nañ trop trop bu baax a baax a baax baax xam nga Mari moom bu wootee moom macha allah xool yi day daal di tooy ñëpp kontaan lépp lu nu mënul jàpp dañ koy bàyyi xam nga ñëw teewal ko.